sama rakk la ñoo bokk ndey baay sama kër yi la nekkoon soxnaa na ngi fi doomam ngi fi da doon liggéey fii ci puuru sama rek bii mos suñu koo xam ci dara lu dul liggéey ñëw wàcc bii nag man jóge naa rek fa ma nekkoon di waxtaan ñëw ñëw ci kër gi dajeeg nit mu woo ma ne ma kaay ci biti ba ma demee tiim naa ko waaye ña ko rey ña ko ak ñoom ñoom joteel moom xaw ma leen xaw ma ci ñoom dara it ba léegi amu ci dara lu ma leer lii daal moom laa ci am dara nag jotu ko woon moom xeex booba daal moo ko lor ña ko lor nag xaw ma ñu mu dox ñëw mosoo am ci moom benn euh, information ñoo xam ne am nañu séqoon déedéet wala déedéet yenn yoo yenn jafe-jafe yoo da doon liggéey ci fuur baa ngi nii fuur boo génnee fi ci gën a am poste courant bi àgg ci fuur bi bu xëyee liggéey na ba na benn heure mu wàcc lii ne bi ma ñuy fekk naa mu génn bi ma ñëwee nag man tuuti laa toog ñu woo ma na ma kaay kat moom kat am na fee am na ñu doon bijool ba defe naa rey nañ ko ma dox ak sama tànk dem fekk ko ah ñu ñu lor ko ma mujj ko xool ko a fekk mu faatu lii laa ci ñaata at la amoon. moom day xam naa ne carte d'identité bi dafa maa sori waaye xam naa ne am na benn rakk boo xam war naa toll ci xam naa ne fii ne fanweeri at juróom de war na ko mën a moom wala wala ñun fukk moom daal xam naa fanweeri at juróom fanweeri ak juróom wala ñun fukki at daal war na ko mën a moom yàgg na ci fuur ba yàgg na ci fuur bi yàgg na ci fuur bi yàgg na ci lool yàgg na ci fuur bi déedéet déedéet déedéet musuma ko déggal benn problème mhm. xanaa dem liggéey wàcc mhm. loolu laa ko déggal moom moo nekk fi sama kër la nekk mhm. soxnaa ma ngi fii ak doomam mhm. man maa ko yoroon man la nekkaloon ba mu ci moom benn problème ci dégg na soxna waaw soxna benn benn rek la yor waaw benn doom bu ndaw man benn problème waaw mhm. ah, benn ko am a a loolu lépp nag ump na ma ndax man ba may dem fekk daa ma faatu mhm. loolu lépp ump na ma wax dëgg yàlla de na ma ko yëree kanam gi moom am na deret waaye man xam nga sama sago mooy ma ma di ko xool mhm. loolu lépp nag ump na ma luñ ko rey ak nu mu def daal wuuru naa ko nag ba xool kanam gi moom am na ay gaañu-gaañu ngi nàcc ci indi waaye wax dëgg sama sago mooy ma di ko di ko xool mhm. waaw loolu moom am na ci mhm. waaw man nag bi may jógi ñëw ci kër gi damaa jàpp ndax yur ma sama montar ku tiit dootoo mën a xool dara waaye xam naa ne man li ma jàpp booba xam naa ne dix heures moom bu jotee day doo ko jot waaw damaa julligee ba pare toog rek ñu wax ma ko xam naa daal ay entre neuf heures demi dix heures yooyu daal di war doon xëy na bu jiitoo man booba yëgaguma ko woon. mel ni ndax mas am fii. man de mosuma ko fee dégg mosuma koo teg ba ba juddoo léegi tey laa ko mas a gis daanaa dégg nag ci rajo ñuy wax rek waaye mosu dal sama kaw tey ne dal sama kaw. Mhm. waaw waaw mel ni yow lan nga ci wax nit ñi. xanaa xam ne ñu comme ñu fonk dëkk suñ tubaab bi comme ni ko suñ tubaab tubaab yi loolu nag laa bëgg a du ma ko def man ku ma tooñ su ma ko mënta faj dem dem woo ñu ma ko fajal waaye man duma fajal saa bopp ci ñaanu ma yàlla rek nit ci li may ci dëkk Sëñ Tuubaa bi rawatina ndax man li Sëñ bëgg rek laa bëgg lii ne dal nañ sama kaw mënuma ci dara waaye lépp teg naa ko ci loxoy Sëñ Tuubaa waaw daa yoroon wala lan wax dëgg yàlla ump na ma ump na ma yor xaalis géeg lépp ump na ma wax dëgg yàlla ump na ma lool man daal fekk naa mu faatu te nit kuy rey sa mbokk sax yow amatoo koy xool ndax am na xaalis ak yorul xaalis hmm. man la ma ca fekk fekk naa ma faatu daal. Hmm. mais moom bi fi jóge ci kër gi dem ko waxul woon dara ndax moom daal amuloo. wax dëgg yàlla benn wallaahi gisuma ci moom dara ndax man démb ci bëccëg laa ko mujj gis. Hmm. démb ci bëccëg de tooguñu dama doon génn ci kër gi daje moom ci buntu kër muy dugg ci werandaay bi may génn. ma ne ko léegi man maa ngi dem noppali jëkkër sama yaay comme comme léegi dafa tàng fi ci man foofu mën naa fay yendu ci ma dem noppalu ci kër sama yaay bi ma timis gi nag fekkuma ko ci kër gi mhm. boobu la génn ba mu génn nag foofa la amee problème boobu ndax fii xawul lëndëm ay affaire yooyu ah lëndëm gi dafa mu lëndëmee moom wax dëgg yàlla ak ñu ne fii lépp ay leer la wax dëgg yàlla mhm. xam ne xëy na lëndëm na ci kanam tuuti fa pàkk yi nekk ca courant mu fa rek sant yàlla julli ci yonent bi sant sëñ Tuubaa bu baax te xam ne moom ah yàlla sunu borom lu mu dogal rek noonu la metti na nag ndax metti gi mooy nit bu faatoo woon ci accident wala mu faatu ci feebar ñu xam ne loolu am la waaye xam nga rey moom ku ñu rey sa mbokk du la neex waaye nag sant nañu yàlla dellu nañu lépp yàlla ci bëgg nag ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoonu sut xam-xam te nekkal fi ngóor gi nekkal fi waa réew mi ñu wut ci ay matuwaay ba moom bu lii jàllee keneen dootu ko def buy yom nañ yóbbu nañ ko ci yoon ndax dem nañ fee ci ndindi ba jébbal ko gendarmerie def nañ ko yóbbu nañ ko gendarmerie ba nee nañ nag du ngeen ci mën a jot tey loolu la leeral moom lépp nag mi ngi ci ñoom def nañ seen constat ndax ñoo fa ñëwoon ak sampol moom ma nga ca jadatu ma wax yóbboogu ñoom ñoom ñoom ñoo ko téye ñu ñu jëlagun ko dañ ko bëgg a xool ba da ah, seen i pexe loolu lañ ñu wax de mhm. daal lu wax dëgg amagun ci benn lu leer